jaboote yello ko diko sant ci jam gi nga xamne mom lañu tan ñu nek ay jamam waye diko sant ci ay xewalam yi nga xamne neena wa in tauddu ni'mat allah la tuhsuha waye diko sant ci xewal gi nga xamne moñu ko defal muy xéewalu weeru ko te ñu fekke ko ñu nar ko fekké insha allah taala te daw ci heure bi amna ñu fi nekkon ak ñun te tey jii ñuy waxee nekkuñu fi déwén ci waxtu wii yàlla bu mu nekk kenn ci yéen wala kenn ci ñun waaye am na ñoo xam ne faaw duñ ko fekke kon mboolem ñi nga xam ne ñoo fi jóge yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla baal yàlla bu leen yàlla topp yàlla na leen yàlla xaare àjjana ñun ñii fi nekkandi yàlla nañ fi fekk ay at yu bare bare ànd ak wér ak di ko woor te suñu boroom di ñu kàttanal ba duñ rëcc suñu borom bi di ñu dimbale ba duñu jàdd ba ëllëg incha allah bu ñuy dajee moom làq ngërëm li nga xam ne moom la bëgg ci ñun comme ni mu ko waxee ci aay yooyu yi ñu jiital rek mu ne na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal ko te fexe leen góor góor lu leen ba bu ngeen di faatu na leen fekk ngeen nekk ay woy gëm yàlla nañu ko yàlla defal moom borom bi subhaanahu wa nag mu farataal ci ñun li nga xamne modi as-siyam mu ne farataaleef na ko ci yéen comme ni nga xamne non lañ ko farataalee won ci ay xeet yo xamne ñoo leen jitu won waye nak yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla da ko farataal ci yéen ngir ngeen man ci am ak ragal yàlla yàlla mu ne muy ay fan yu néew nak muy an ay fan yu néew fan yu néew yo xamne ku ko yàlla man do ci yéen nako wor waye ku am ngànt ngànt li wàcceel na ko li nga xam ne mooy koor gi mu jàngale ci laa yi ne am na si ñoo xam ne sax dañuy xaar pendant at bi nga xam ne moom lañ dëdmal saa bu ñu ko mënee ñu fay ak nuñ ko mën di fayee waaye nañ matal lu toll ne la nga xam ne rek moom lañ dogoon waaye am na leen ci yéen ñoo xam ne xam nañ ne sax fii yëg déwén ñoom duñ ko mën ñooñu nag nañu def lii wala nañu def nee wala nañu doxalee nii xëy na duñ ci dugg tey incha allah waaye ci biir koor bi xëy na yëpp ak imaam yi nga xam ne ñooy xutba nañ ko leeral ala kulli xaalin kon ñu nekk ci aw weer woo xam ne taxawoon nañ wax ci waaye wax yooyu ñu waxoon na kenn ku nekk ci ñun nga war a laaj ndax def nga ndax lañ doon santaane def nañ ko ndax woor nañ ci ndax doon nañ ci jéemant di julli ndax doon nañ jàng alxuraan ndax doon nañ jéem def lu baax comme ni nga xamee ne noonu la ko imaam yi waxee woon bu fekkee ne tont ni mooy déedéet ngal la waay sama mbokk na nga góorgóorlu xam ne weer wi des na tuuti te nag bu jàllee rek jeex na ba déwénati te xamoo ba xam ne dana la fekkaatam déet te koor gaa ngi ñëw bu fekkee ne nag tont bi mooy waaw alhamdulillah waaye na yokk góor góorlu te jéem a waajal te xam ne koor gi moo ngi ñëw te koor gi nag moo ëpp aw yiw lii nga xam ne ci lañ jóge muy chahru Shaaban di weeru barax mi mbokk yi ku nekk xam na ne incha allahu taala ajjuma tay bi bu dellusee lenn nekk ci nit ñi mooy war a nekk seen séentu bu njëkk kon ci ñun ñii ci dëgg-dëgg gaaw ba ca topp mooy war a nekk ci séentu bu njëkk kon daal li wérte wóor mooy dibeer ji bi di ñëw bu dellusee muy dimanche bi di ñëw bu dellusee yaakaar nañ ne danañ woor ndéem soob na borom bi subhanahu wa taala kon koor gi agsi na ba noppi mbokk yi nag ku am gan gu màggee nii di bëgg ñëw comme niñ ko daan waxee war na ci yow nag nga waaj dafa waajtaayu yaatu waajtaay woo xam ne dangay jël sa lépp li nga xam ne moom la la yàlla jox nga waajaleek ko te waajal weeru koor ak jéem koo jooxe ci ni ko borom bi dugalee digalee loolu mooy tax nga mën a mos lii nga xam ne moo di cafkak jaamu yàlla waaye cafkak jaamu yàlla it ngir nga mën koo am dafa am ay jaaruwaay yoo xam ne mooy tax nga am ko te loolu mënta ñàkk ci ab jaam muy ay yëf yoo xam ne def ko war a wattandiku ak ay yëf yoo xam ne def caa war a góor góorgóorlu bu baax a baax bokk na ci si jam suñu jamonoy tey comme niñ koy waxee ci lu bari rek di ko fàttali muy waxtu yi yaatu yi nga xam ne moom la moom la jël di ko wéyal ci leneen lu amul njariñ te bu njëkk dañ daan wax ndaw ñi waaye léegi nag moom ndaw ñee mag ñee ko bokk ndax bu njëkk xëy na ndaw ñi dañ daan génn doxant ji dem géej ca seen dëkk ba ñii dem wéqante ji ñii dem def lañ naan dàqi waaye léegi nag yàlla dafa dogal ñun ñëpp ñu yor ay téléphone ci suñuy loxo te jafe na lool sax nga jàng ab jukkib alxuraan ba mu yegg te jëfandikoo woo téléphone bi te kiy jàng alxuraan dafa war a teewlu te léegi jafe na lool nga jàng ba yeggal kenn woowu la téléphone wala am lu ne ken ken ci sab téléphone nga bëgg ko xol daal di yeggal te loolu day dakk wante ak li nga xamne moy ak tewal ci waxtu yi nga xamne mom la yàlla mom la yàlla soxla sa xol ci lu melna euh jàng alquran ak julleeg yi ni mel téléphone boobu nak yàq na lu bari ci li nga xamne mom lañ daan am ci suñu digënté suñu borom téléphone bobu yi tamit niñ koy faral di waxé rek nek na ci benn jumtukaay boo xam ne mooy waxtu yi yi sukkandiku ngir dog ak waxtu yi nga xam ne moom lañuy sukkandiku ngir jàpp waaye doon na neex lool ñu jiital suñuy imaam njëkk téléphone bi te loolu it mooy fiq ndax nañ bàyyi xel ne ñeent fukki at ci ginnaaw ñun ñëpp daan nañ woor daan nañ dog daan nañ jàpp te boobu téléphone yii amutoon kon nag tey téléphone yi wër te mën a dox suñu digganteeg suñuy jaamu yàlla dëgg la nag mën nañ koo jëfandikoo ci yu baree bare waaye daal ba tey daal gis nañ ne ci wàllu waxtu yi moom surtout fajar gi ak timis gi dañ dañ di ko wax gis nañ ne daal wax dëgg yàlla maanaam bañ leen see déglu tey déglu imaam yi daal mooy li nga xam ne moo ñu gën a doy gis nañ ne fajar gi teel na lool gis nañ ne timis gi teel na lool ba tax na loolu ñu ngi koy fàttaliwaat ci waxtu dog yi ba tax na ngeen di laaj ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu goog yi waxtu yañ leen di jox ak la nga xam ne moom la téléphone yee joxe lu mu bari bari du mat fukki minute te fukki minute bariwul bu loolu weesoo ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy tax ñu mën a am cafka jaamu yàlla muy ñu jéem a bëgg yàlla borom bi subhaanahu wa yàlla da koy bëgg moom la Cheikhul Xadim daan wax naan lépp luñ may askanalee ne dama koo bëgg rek damay dogoog loola bëggumaa dugal ci sama xol lu dul bëgg yàlla akub yónnanteem niki noonu it jaam bi ci boppam jaamu gi nga xam ne moom lay def daf cee war a am bëgg-bëgg maanaam li ñuy wax désir daf ko cee war a am desire bëgg-bëgg boo xam ne dafay bëgg ci xolam ndax yàlla nee na yëgal ne li tax ma indi la ci kaw suuf si mooy nga jaamu ma comme que yàlla nag daf laa jox benn mission mission boobu mooy mission ibada kon moo lépp loo xam ne moom ngay def rek moo ci war a jiitu kon jamono bi ngay def mission bi nga xam ne moom la la sa borom sant war nga caa am ak bëgg-bëgg niki it jam bi warna di fexé di nab nabbi ci alquran mo xam man nako wala mënu ko ñàkk man alquran du aw lay ci ñak ci nab nabbi da ngay xor rek fa nga xam ne fa nga toll ci alquran ñu ñu nga nga jéem ca aka neexoon ñu am ay dawraat yo xam ne dinañ ci dimbalé a yok dimbalé dimbalewaate bu baax baax ci ndaw ñi ak ci mag ñi xatta si mag yi nga xam ne sax yegg nañ fo xam ne nañ ne dem di wessuna waye jang mom ñu gën leen a mën a dimbale rawatina ci weeru koor ndax defe naa ne tey jii buñ doon wax waxal aaya bii wala waxal baat bi ñi nga xam ne seen àlliwa soriwut te lool it wax dëgg yàlla yàlla dana leen ko jéggal yaakaar nañ ne ndax ñi ngi góor góorgóorlu seen diine ñi say àndandoo di def lu mu néew néew wala weeru koor gee jeex danañ ca am ay aaya yu baree bare saa bu amee mbooloo moo xam ne nag taxaw nañ ngir bëgg loolee incha allah ñun warloo nañ dimbali leen te yàlla rek tax te duñ leen si laaj benn dërëm bu loolu weesoo it alxuraan ji ñi ko man di ko jàng war nañ di ko settantal bu baax a baax rawatina ci li nga xam ne moo di weeru koor waaye nit ki tamit war na ba lépp loo xam ne day dox digganteem ak teewlu mu dog loolee waaye lépp loo xam ne daf koy gaar walis suñu borom subhaanahu wa taala mu bàyyi loole waaye mooy taniku it gaaraam palaas yeeg wax ju bari jeek nettali yeeg jëw yeeg rambaaj yeeg ak ay jëpp ayib yoo xam ne day jóge ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man lam yadaa qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatan fi an yadaa taamahu wa sharabahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dafa woor te ba mu wooree bàyyiwul lii nga xam ne mooy waxi caaxaan ak jëfi caaxaan kooku yàlla amul benn soxla ci bàyyi ga nga xam ne moom la bàyyi lekk ak naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na doomu aadama bi bépp jëf bu mu jëf moo ko moom ba mu des koor يالا نينا من ما موم كور تي ما كاي فيل سما بوب فانه لي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به بام كو وخي با نوبي داني الصيام جنة والصيام جنة ليغا خامن مودي كور اباك لا موي لو خامن داي دوخ سا ديغنتك تاب بي سفرا وس فدان بو كين تي ين ووري نك نا فخه با بومو واخ بن واخو تياخان bu mu wax benn wax bu ñaaw xattaa bu kenn ñëwee sax attaqué ko ci wax ju bon bu boobaa nee na na nga téye sa bopp bul fayu xattaa bu nit dikkee ne day xeex ak yow sax nee ko damaa woor daa di ne nag ki woor ba ngoon am na ñaari mbégte mbégte mu njëkk mi mooy bu dogee ba tiim ndog yeeg yi si yi ni mel waaye mbégtem ñaareel bi nee na ëllëg yowmal xiyaam ci àjjana yàlla bu koy berneel ay xeeti xéewalam dana fa bég lool kon ki woor war na di euh, génne ci ab xolom lépp loo xam ne day dox diggante ak topp borom bi subhaanahu wa taala mbokk mi yéen samay mbokk nangeen bàyyi xel ne koor day bokk na ci la ca gën a bari mooy di julli te julli lépp yiw la ndax yàlla dafa séddalikoo akub jaamam suuratul fatiha ci ay xaaj am na partie boo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin soo ko waxee mu ne eskay sama jaam bi day sant na ma boo ne arrahmani rahim mu ne eskay sama jaam day kañ na ma nga ne maaliki yawmi diin mu ne tagg na ma màggal na ma jox na ma li ma moom loolu nag ngir nga man koo am faawu ak teewlu rek moo la koy mën a may teewlu googi nag soo ko amee ci sab xol bu boobaa nekkul dul ak caf ko gu neex goo xam ne kenn du ko xam du dul ñi nga xam ne fii salaatihim xaashiun ñoom bu ñuy julli dañuy toroxlu kon loolu it moo lay mayaat li nga xam ne moo di caf ka gëm yàlla te loolu lu mat a bàyyi xel la niki noonu it mbokk yi bu ñu wooree lépp loo xam ne topp ndigal la nañ koy jëfe liñ ca man waaye lépp loo xam ne ab tera la rek nañ koy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ab jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne ay yiwam daf koy bégloo waaye ay jàdd-jàddam ak i rëcc-rëccam saa bu sa xelam demee day tiit kooku mooy ab jullit kon nit ki war na di góor-góorlu di bàyyi xel bis bi nga xam ne it jëfi koor yaag yi dul koor yépp danañ ko jóor ci sa kanam la ca tuuti lool ak la ca rëy lool te yàlla nee na laa yuxaadiru saxiratan wala kabiratan illa axshaaha di bàyyi xel nag li nga xam ne mooy épisode yeeg série yeeg waxtaan yi nga xam ne yu bari ay caaxaan la rek ak ñi nga xam ne dañuy reetaan loo waate ci mbiri diine ak di kaf koorug sëñ diw ak kooros meer diw ak koorug soxna diw ci suñu société ñun ñu bàyyi ko yooyu xam ne amul njariñ te it kenn waru saa géeju te ñu koy def war nañ ko bàyyi te tuub dellu ci borom bi xam ne diine kenn du ko fawe niki noonu ñu bari bu ñu wooree danañ bari lool euh, li ñuy def ay live vidéo rawatina ndaw ñi ci ay caaxaan baax na lool nag wax dëgg yàlla képp koo xam ne danga koy def di ko jëmale ci mbirum diine ñoon la ci encourage bu baax baax waaye képp koo xam ne danga koy def di ko jëmale ci mbiri caaxaan ñoo ngi lay ragal la borom bi nga tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف العباد سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه كون جينا بي سانتي يالا جي لي تيونتي صلى الله عليه وسلم دي نيان ني فك كور جي با لي ني سيني بروم ديغال ليپ ني مان كاجا ديف خاجي نيارال بي داي جيم سي bi si njëkk ñuy wax mbokki jigéen ñi nañ yokk góor góorlu tey bari li ñuy sant yàlla tey bari li ñuy fàttaliku borom bi ci li nga xam ne mooy weeru koor xam ne kat yàlla jox na leen aw yiw ëpp wi nga xam ne moom lay jox euh, ñi nga xam ne ñooy góor ñi ci weeru koor ndax dañuy woorandoo waaye nag duñu defarandoo ndogu te nag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku fekk ku woor ba ngoon mu waajal ko la muy dogoo mu jox ko ko bu wooroon ne moom day am ñaari tuyaaba maam day mel ne yàlla dafa double jëmm ja bindal kii tuyaaba bindal kee tuyaaba boole ñaari tuyaaba yépp jox ko jenn jëmm ci ci wa tuyaabay ñaareel gi mi ngi bawoo rek ci xattaa doom tàndarma boo xam ne da koo jël jox ko waa kër gi wala sëñ bi wala xale yi te ñun ci suñu société li ci ëpp jigéen ñi ñooy defar ndogu te dañuy wooree bi ñuy wooree kon ñoom danañ am <coughs> jeneen tuyaaba ju dell ku coox ci dolli ku ci tuyaabay koor googee ba tax na aayul góor ñi tamit bu ñu xamee yu woowee ñoom it ñuy daw di njëkkalante ñoom di leen dimbale ci li nga xam ne mooy defar ndogu yàgg yu ni aju te loolu it yomb na lool rawatina ci dëkk bi ndax kenn ku nekk ku nekk ak sa waa kër eh, defe naa ne sab appartement ngay nekk boo xam ne xëy na melul ne fa nga xam ne fa lañ jógee nga xam ne lu bari boo koy def nit ñi dañ cay am ak wàll mbokki soxna yi ñoo ngi leen di bàyyiloo xel tamit ngeen di gaaw a fay defe nañ ne képp koo xam ne amoon nga wér ci weeru koor gi weesu ba tey am nga posem fay li nga xam ne moom nga dogoon ci weeru koor waaye di ko sàgganee nag di ko sàgganee nag ba weeru koor di loolu moom ëpp naa def kon daw leen ñi nga xam ne ñoo fayitoon nañ gaaw fay li nga xam ne moom lañ amoon ci ay bori koor ndax képp koo xam ne am na boru koor mu sàgganee ko ba koor dellu si bañ koo fay te amu ca benn ngànt day nekk aji bàkkaar te bàkkaarit it lu mat a moytu la ñi nga xam ne it dañoo amoon boru weeru koor te mu jóge woon ci lu mel ne ëmb wala nàmpal loolu nag taxul waralul ci ñoom euh, ñu war a leele mu wàcc leen déedéet dañuy fay dañuy fay lu bari ci nit ñi tamit dañuy faral di waxee naan euh, koo xam ne la la teree woon a woor dafa bawoo ci ab ëmb tollu diggante wala lu ni mel déedéet da ngay leele loolu wérut kon dañoo war a fay loolu mooy li nga xam ne moom lañ gën a gis ci diine ñu bari it ci nit ñi suñu wooree dañuy bari lool ay jàmbat ak di mettil la koor geeg yu mel noonu yooyu it yu mat bàyyi xel la mbokki jigéen ñi tamit léeg-léeg ñu ne mënuñoo woor dañoo am ngànt fekk déedéet dañoo xaw a ragal koor gi rek léeg-léeg it yàlla teggil leen ko ngeen ngànt ñuy nëbbatu fekk déedéet loolu amul ngànte amul bàkkaar yàlla leen ko teg kon niki noonu yi nañuy bàyyi xel tamit ci ne képp koo xam ne ñàkk naa fay ba weeru koor fekkaat ko fi amu ci benn ngànt kooku aji am bàkkaar la waaye nag yéex a fay moom teel a fay da koo gën rek waaye ba tey baax na sayyidatuna Aïcha nee na man kat daan naa ñàkk woor weeru koor ba Shaabaan di bëgg a jeex te du ma ko mën a fay wala du ma ko mën a fay lu dul ci weeru Shaabaan muy weeru baraxlu bi kon ñu fàttali xadiisu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nee na képp koo xam ne wee woor na weeru koor gi ci ak gëm yàlla ak rafetal ko yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yi jiitu yépp ak yi mujj yàlla ñu si yàlla boole képp koo xam ne euh, fexe na ba màng li nga xam ne mooy guddig laylatul xadr yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yi njëkk ak yi mujj yàlla nañu ko yàlla màngloo rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar yàlla ñu yàlla may jàmm ci àdduna yàlla ñu yàlla may jàmm ci àllaaxira yàlla na suñu borom dund